daan ci am ci ndam ba tax na nag jam ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax jamaïcain moo taxawal bii combat muy le 8 janvier ma bàyyi leen nag ñu nuyoo ñu wéyal waxtaan ndax ne jot naa ne nag bokk na ci jàmmaaloo bi nga te ne jàmmaaloo bu neex a neex lay nekk ndax ñoom ñaar dañoo ñemeyantoo ndax kii dafa dugg géejuwaay am fa ndam kii dugg Pikine am fa ndam ku ci nekk nag am na loo ameel sama boo ko koo fay ma bàyyi ki nga xamante ni mooy Ziza mu nuyoo ñu wéyal waxtaan Ziza nuyu naa la. naa ñu ngi lay fay. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaani waajur maa ngi sant sama sëriñ sëñ Abdou Lahad ma dem madame Seynabou Mbacke ak doomu sëñ Gëlas Mbacke di sant sama mbokk bambara yi ak sama mbokk saraxule yi di woo di sant waa bi ñoo naa baax baax ak pikin bi ma dëkk ko maa leen sant bu baax a baax. doo nuyu kii toog. non kii maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Hmm. Hmm. mais lii nga takk nii laal la. non lii du dara. Hmm. Moussa Fall moom ko takkal rek ma ñëw ko mais du dara. Cheikh nuyu naa la. waaw bisimilah rahmaani rahiim bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si nante bi ñu sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax a baax di ñaanal Pape Mor Fadam fa mu nekk gënal ko fi mu jugee di ñaanal aussi suñu papa Bédi Seye fa mu nekk gënal ko fi mu jugee suñu yaay tata Mariam yàlla bàyyi ko fi ñu ngi lay fay bu baax a baax di sama papa sama xarit waaw suñu kilifa borom daaru ñu koy nuyu bu baax a baax ak saa Touba xam nga ak ñoom Pape. di nuyu sama mag góoti sama mag Modou Guissé waaw sant yàlla bu baax di ñu fi toog nii ñëpp abu xam nga ak xaritam bi mu àndal soxna yeeg ñëpp daal di la nuyu aussi yow Ousseyn. fay naa la bu baax baax diggante Guédiawaye ak Pikine nag daanaka mënul yomb ndax làmbu dër bi la ba tax na nag euh, combat bi nekk na komba boo xamante bu neex la nekk na komba boo xamante moom bokk na ci combat yi ma bëgg ndax dafa nekk ay mbër yoo xamante ni dañuy jaay bés dañuy neexal journée. te làmb dafa baaxoo xas-xas loo Cheikh jamono moo ngi nekk ki moo fa dem euh, Ziza ban écrit booy ñaa wala <laughs> ban écrit yëkkati micro bi écrit bi waale ba ah écrit waale ba laa ne waale ba gis ngeen mbokk yi mais ñu bàyyi Cheikh parce que su ma juumul yaa mujjee bëre sa diggante ak Mamor coow li bàyyi woon na làmb ji amoon na coow ñëpp ne woon Mamor la mën naka nga bëre ak Mamor waaw ah, ñun moom xam nga rek ay xel lañ amaana làmb moom bërew ñu si pour benn adversaire dañoo bëri pour nekk champion parce que ay champion lañu bëgg a nekk siiw bàyyiwuñu si làmb ak tur déedéet dama bëgg a nekk champion moo tax may bëri su nekkoon ay siiw ak yooyu noonu rek teel naa bàyyi làmb dem seeti leneen parce que sama taawu yaay suñ kër dañuy luwee amuñu dara dama war a jàppale suñu waa kër ak ñeneen ñi yaakaar si man comprendre waaw dañoo liggéey ànd ak ñi ñu war a àndal gëm na tey jii ku nekkul Mamour sax incha allah dañ koy daan. mais lan moo tax combat bari woon coow sa digganteeg moom lan la. waaw parce xam nga làmb la parce que ma utal ay adversaire yu bëri ñu bañ ma jël sama kese moom biñ ko seetee dafa naroon bañ te liñ ma fay baaxul ma jël sama kese cent mille doolil ko pour combat bi taxaw. mais lu tax nga ko cent mille te nga jógee ci ay défaite moom mu jógee ci ay victoire ba noppi nga nangu ko dooli xaalis bu bëgg a bëri ak moom. non man jógee far yàlla def ma jëm sama bopp benn defet laa laa jóge mais dinaa ñëw ci loolu tuuti ah. parce que ñu bay comprendre nga jóge sa kër ñëw ba ci làmb ji mhm. waa bàkku jam sa bopp làmb ja yàqu lan la woon man nga yëgoon moment boobu waaw loolu wax dëgg yàlla billaahi ñun xamuñu loolu xamuñu luy yàq làmb bëri naa hmm. quatorze combat musuma def luy yàqu la amaana ndogalu yàlla la destin la kenn mënu si dara xam nga passé na ñu ngi suñu entraînement nekk si leneen même combat bi ma passé nii man pour man sax si defet laa jógee. di nekk sama waaw bien sûr <laughs> sa làmb làmb moom guerre la rek. waaw booy dem guerre moom da ngay yóbbaale lépp xam ne lu nekk mën na la faa fekk. mais nga daan noppaluwoo sax jëlaat avance. waaw parce que li ma la wax ay champion lañ bëgg a neex man fàtte naa ne damaa daan pour man si defet laa jógee sant bi li nekk sama kanam moo ma ñor. li na sa kanam dinañ ci ñëw ma ñëw ci Ziza Ziza nga ñëw fekk Petit nekk ci ay série de victoire war a daje ki nga xamante ne mooy Benzema di waaj amaguñu dat nga ñëw stade ba mu tëkk la nga jël avance am. waaw mais loolu normal quoi xam nga ñun ay jeunes lañ quoi. Mm-hmm. te jii bu fekkee ni comme dañuy wax rek ñun suñu waajur yi dañoo sonn ci ñun quoi. Mm-hmm. te amuñu leen lekk lañ leen mën a fayee ñu teral leen parce que waajur lépp loo def ci moom rek. du doy waajur lépp loo def ci moom rek du doy. par exemple may ñëw di jël petit ñaar da fekkoon boobu samay sama yaay dafa xawoon tawat quoi. bu taxoon ma jëloon ko combat boobu noonu quoi mais pare woon pour bëree sax. waaw parce que ñëpp nee nañu woon ba ci yow sax nee nga woon bàyyi nga làmb ñu ci bàyyi ne Ziza bàyyi na làmb. Mhm. mais ñu jékki-jékki rek dégg Ziza jël na avance. loolu ay mbir la woon quoi parce que dama ne à 100 pour cent bàyyi woon naa làmb quoi mhm. mais man lépp lu ma am suba ba ngoon rek làmb moo ma ko moo ma ko def quoi. lam moom aw ma wax dëgg yàlla yaa ngi doon làqatu di entraîner. waaw mais maa ngi doon nëbatu di entraîner parce que man loolu laa xam quoi entraîner rek laa xam. ñu ci bàyyi moo la mën moo ba ci moom loolu la gëmoon. waaw waaw ci digg géew bi dafa mel ni bi ngeen jàppantee. Hmm. xeex ba génn xam na ne la mu yaakaaroon wala la mu foogoon ci Ziza nekkul ci Ziza. waaw parce que Ziza moom mun naa nekk benn style boo xam ne nii taayu élastique la. Hmm. taayu élastique dafa am ci làmb am mun ngaa ñëw bañ a jël volume mais da ngay am doole quoi parce que duñ naan dara ñun duñ naan dara mun naa football quatre-vingt-dix minutes ci ASC bu ma dëkk quoi dama fiy football quatre-vingt-dix minutes. daa am ci làmb yi daa am ñuy naan dara. non parce que xam nga làmb tey ji gaa yi dañoo gaaw ci bëgg volume quoi ci volume. bëgg am doole bëgg voilà parce dañuy xalaat ni ëllëg dañuy dooni mag quoi te am na yoo xam ne boo ko jëlee boo demee ba nekk mag da lay sonal tamit quoi aussi. xam nga moo tax instant bi nii foog ñuy lu ñuy travail ni di dem ci ay say yeewu waaw non bañ a dem ci dañuy dem ci ay say yeewu di fa football di def lu ne daal ñu ngi koy ñu ngi ñu daal ñu ngi pare daal l'essentiel parfois Moussa Fall yóbbu mu diine ñu ànd internet affaire yooyu noonu ko parce que làmb jamono ji ñu ne quoi non liggéey la rek quoi liggéey rek la laaj liggéey moom moo njëkk quoi. Hmm. nga jógee am ci ndam lan moo dugal làmb la rek mooy li ma la wax rek xam nga jamono ji làmb amatul kii moo raw kii kii moo kii moo raw kay léegi làmb am mooy da ngay bëre da bëre rek quoi ba yàlla di la dogal parce que ñun suñu génération ku bañ defet doo am ay dix defet soog a yéeg si kaw parce que ñun ñëpp dañoo war a bëri suñu biir bu ñu jógaatee si kii nii bu la jaxaatee beneen booy da ngay ñëw bëre. mais dama gis ne doon nañ la proposer yeneen adversaire mais lan moo tax parce que jox na ma ñetti adversaire yëpp dañoo delloo avance bi. ñooy combat dafa yàq waaw non ñoom ñooy bañ quoi du man quoi man combat du yàqoo si man déggoo li ma man sama yaay day jaay jën damaa bëgg loolu noonu dañ est-ce que nga ma. Mm-hmm. sama yaay day jaay jën te dama bëgg loolu noonu dañ. dañuy day day day jaay jën day yeewu fajar te loolu daf may gêner man. waaw bëgg daal mu bàyyi ko waaw mu bàyyi ko mu bàyyi ko yàlla dimbali ma ko quoi li ma retour bi nii te si lay amee incha allah. yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def. allahumma amin mais sa diggante ak Cheikh loolu la ñàngalante nii man xanaa bu fekkee man moom ragal ma leen. <laughs> non du question de ñàngal sax xam nga. tey jii gis mooy commencé xam nga di neew yooyu yaa ngi commencé jël affaire au sérieux te bugguma loolu. dama non man ba man naa rek quoi mais après bu jeexee rek jeex sa mhm. diggante ak moom bëggoo ci jàmm. non bu jeex déggoo li ma la loolu kay jeexal na téere bu jeexee rek jeex na ba mu xasee ba jël avance bi laa ko sant. parce que xam naa dañuy bëree waaw dañuy bëree moom bu sox sonn. mais moom nag dafa mën a xeex. waaw waaw waaw ndaanaan la ndaanaan la mais booy xeex dangay xeex ak sa morom man bu may xeex damay xeex ak sama morom. ci doomu ma xeex ak may xeex damay xeex ak sama moroom Cheikh. kii yaa ngi lay jéem a minimiser di la jéem a tuutal yooyu de. waaw yàlla baax na moom du sama morom. kon jarul muy jar avancé. non fi mu moom. defe naa ne koy jëflanteel moom moom bi dañ koy teggi teg ne. waaw comme que moom nag moom nee na su may xeex damay xeex ak sama morom. Mhm. incha allah dañuy man nag loolu bokkul ci li ma bëgg ci làmb. waaw. ay damaa jël avance aw ma lu may wax ak moom xam nga. non kii ma wax moom non foofu ñu jëflante parce que jàmmaar lu mu demee naa ni waaw. man du ma moroomam. Mhm. yaa may dégg ay sañu ma taaw xeex ak man xam nga ni kii day wax pour la plaisir mais kii nii man man man may entraîner pire et dire yaa may dégg ay nit topp sama ginnaaw. yaakaar si man. Mhm. yaa may dégg may daj lu metti di entraîner lu metti man làmb fu ñoom Modou Lo egg laa bëgg a egg si làmb. amagoo dara ci làmb. 14 combats bëri naa ko mosuma jël avance ci làmb fay lu fay nañ ma lu nekk dañ ma koy fay may leen bu leen ma jox avance bu leen ma jox dara parce que da ngeen may sonal samay supporters laay jëndal bi ñu dem man làmb dama si war a réussir si kattanu yàlla kii bu taxawee di wax ay wax yi nii xam nga ne waxu kasaw kasaw lay wax. mais est-ce que ñeme ngaa xeex moom. kii dama bëgg li may wax dama koy xool dama bëgg man ak yow ñu taxaw cinq minutes tóor une ba pare doo koy bëri. comme que yow da nga ne doo yooru de dama bëgg nga déglu ma da nga ne ay ay see. su ko yow xam naa la ay ay see ngay dem di petit camp yooyu man Père Gomes moo ma yor damay physique damay liggéey diin damay contact. macha allah te xoolal doo lay xale contact. dama bëgg nga liggéey bu baax a baax loolu liggéey doyul parce que moom bëgg boo simee ko nga am état ndax bu ma la daanee ñu xam ne ndaanaan laa daan parce que yow ndaanaan nga. wax sa mbaaxu morom wàññiwul sa mbaax yow ndaanaan nga champion nga mais dama bëgg nga xam ne am nga combat te incha allah si kattanu yàlla suñu borom bu neexee yàlla le huit bu ñu nee runkum daje <laughs> leneen ngay wax. mais doo ci lu mu jëlee woon bi. yàlla baax na man ngay waxal Cheikh Super Diamono ngay waxal. xool ma bu baax a baax kii man daal xam naa ne. non mais bien sûr parce que parce que xam nga xam nga dans la vie. c'est comme ça quoi sa àdduna moo demee nii quoi. parce que xam nga moom mooy lu way faral di wax rek xale nga ak affaire rek yooyu comme man maa ngi dem di petit camp rek ba xale rek ma wax la non da nga da nga wax déglu mu bëgg nga déglu ma ay cadre yow yaay xale bi man maay mag bi voilà comme yow chaque instant yaa ngi koy wax yow yaa ngi wax rek man maa ngi dem di petit camp kon yaa ngi lijjanti samay petit camp ma lijjantiwuma ma li ngay def de dama ne ma lijjantiwuma centenaire doyul loo entraîné doyul gis nga keroog bu may jógee entraînement di dajeeg moom mu yëg si dama ko bàyyi ba mu jàll pare ma soog a bëgguma sax mu gis. man gisuma la sax gis sama dara. déggoo ma damaa yow soxlawuma gis sa dara. xam nga lu tax ak yow. xam nga lu tax <laughs> damaa bëgg maa moom bu ñu simee ci làmb ji ñu xool maa ngi moom ci làmb ji. <laughs> man musuma sumee ko ci làmb ñu ne acam barki Seydina Mohamed dina gën a dagg Cheikh Super Jamono dina ko gën a miskile may dégg dañ ne moo taxaw mais buñ ne runkum daje na xam ne doole xale kii dafa baax rek yow da nga baax rek li ngay wax ni amul sens liggéeyal loolu liggéeyal doyul waxuma lu bon de déggoo ma li ngay wax ay kon loolu da ngay wan ne ne man bu ma simee ko yaa may gën a état jëlal non waxuma la non yow déggoo quoi booy dama bëgg booy nga ànd ak dal booy te yooyu amu fi xam la may problème ah non waxuma la anterne woo waxuma léegi dama ne la mais lu ma xanaa dafa leer keroog ba ma man keroog ba ma jógee anterne maa lay gis yaa ngi anterne yaa ngi liggéey man kay maa ngi lay ñaanal wér gi yaram gudd fan yàlla defal ñu jàmm yàlla may man ndam sa kaw xam yaay dégg lu ma la mais man xam ma wax man man li may wax man dafa leer man sam bopp laa xam xam li ma la man maa ngi dem fi ma war a dem yow yaa ngi dem fi nga war a dem xam nga ay affaire da xale nga doo xale yooyu noonu ba arbitre bi sifflé ba arbitre bi sifflé xam xam la may sa problème parce que boo yow yow laa yow doo dégg yow yow sa jëm bopp yow doo dégg xam la ma tax yow doo dégg yow moo dégg déggin quoi man soxla mu am déggin déggin ah ok yow mooy làmb Mhm. après làmb nag garaawul mën nañ sekk lu nekk. non làmb lañ sekk instant yi làmb lañ sekk kang kang kum kum lañ sekk loolu laa bëgg nga xam. xaw <laughs> ma lenn lu may négocier ak yow. bu la jàllee boy boy boy noppil sa affaire coxota booy yi ngay jéem a dund ak man quoi amu man du ma coxota booy man géej <laughs> waay laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee maanaam ay coxota booy. cokodo booy amu fi de. man Guédiawaye dama fa am ay mboq de déggoo ma Guédiawaye sama lépp a ngi fa. man dama faa am ay mboq fii ñëpp am fu nekk ay mboq yooyu amu fa génneel cadre yooyu cadre làmb lañ nekk. mais moom da daan rakkam ki nga xamante ni nii da koo jege trop sax dégg naa nag defet boobu defet bu ko metti la. waaw loolu noonu garaawul loolu moo tax mu ñëw jël ma si kàttanu yàlla suñu borom incha allah bu neexee yàlla damay ñaan yàlla may ma kàttan kii bu arbitre sifflé bu ñu nee rungum ànd ja ma daan ko jëlee bu gaaw si kàttanu yàlla te incha allah dinaa ko daan si. kàttanu yàlla ñu yàlla yàlla suñu borom parce que xam nga tey jii yàlla ñëpp li fi nekkal yàlla dëkkul géejuwaay quoi. dëgg yàlla yàlla ñëpp li fi nekkal. mais nag mais nag daa neex. waaw mais mun na neex quoi mais déggoo lu ma la loo mos benn yoon mu neex da nga koy tollanti te yàlla na ko yàlla tollanti si kàttanu yàlla. lan la ñuy tollanti foofu. dina leer. incha allah si kàttanu yàlla maa ngi ñaan yàlla ak yonent bi moom yaa rabbana yaa xafur yaa këram yàlla ñu yàlla may wér géeram a gudd fan ñu tal ko te fekkee may la ndam sa kaw yàlla may ma ndam si kawam man booy wër ak foog nga tëj seen làmmiñ ko aw ma lu ma yow maa war hmm. sa biir bi da nga ko dugal non xam nga moom suñu rax la am naa droit di mbalaganteeg moom quoi parce que man parce que xam nga parce que man man man moom day internet day abdominaux xam nga li ma la xam ma la day yaakaar ne day ab déwén te daan naa la dafa am doole dafa pare dafa am doole. jaayal keneen. xam nga li ma la man du ma la mës a jay du ma la jay de jayuma la de. pourtant jayuma la de. non day ab domino dafa am doole da ngay jox bal bi. man nag fi mu war a dugg maa ngi fay dugg man maa ngi sama petit camp yi ah maa ngi sama petit camp bu mag bi ASC yow sama doomu ndey maa ngi lay di woo bu a baax sama doomu ndey. non mais woo bi rek fee lay yem quoi man man kaa xamal leen de eh man du ma daw laaxu de man booy Dominique laa jundoo mooy sama carte d'identité syndicat laa yoroo. te ragal si amoo si lañ ngéntee dama lay wax lu leer de ragal dëkku fa Pikine ragal dëkku fa. man fi ma juddoo fi ma juddoo xam nga dofu Afia moo fa dëkk ak Assane Kébé. foofu dof def foofu ragal dëkku fa. sama maam Jaaji Njaay laa la wax. booy moo Njaay Géejawaay moo Njaay amoo si may ragal. booy. ragaleel rek sa booy xam nga sama moo sañ fii man sama maam moo sañ ci kaay dama la koy wax nag pour nga dégg. xam nga kaay waaw dama lay wax rek ngay dof dof. kaay kaay dafa booy bu booy. booy. Ah. Ah, ay booy. booy da ngaa baax rek di wax. c'est que xam nga Zé nga ko keroog filmé yaa ngi ma mor man doo Zé mën film boobu parce que man fii lañ ma ko def fii. film mooy lan déggoo li ma la non moom nga kay yow yaay zëkk du film man mbër laa yow si nga dëkk si nga dëkk chaque jour yow wax rek lañ la xamee. man man parce que man aw ma sa jot. man aw ma sa jot nga commencé wax wax yow li ngay wax wax fii mu jeex. incha allah li ngay wax wax ko fii mu jeex. li ngay wax nga war a wax fii. parce xam naa ne doo waxaat mën nga waxaat feneen mais jour laa ma jot doo wax leneen ngay tal dañ lay lomb nga dem incha allah yow da ngaa baax rek loo entraîné na sëñ bi amul lu may négocier ak yow ñaanuma la dara seetal sa bopp rek déggoo ma xanaa. non yow li nga wax rek def ko bu arbitre sifflé la tegal sa benn tànk mu teg mu. teg taxawal ngir yàlla nga taxaw samba say tànk suul man ma taxaw suul. Mhm. ñu xeex ba pare doo koy bëre. man xam naa ne da ngay yooru après mais lii boo ko jëlee. di nga mhm. julli te sa heure julli du jot. hi da kaa tegagul rek. laaj ko Mandela mi ko doon wax mais waxoon na ko fi Mamor te bi Mamor ñëwee noonu la ko def. waaye yow mais yow eh. kooku xam naa du ngeen. benn papa mag yaay Mamor ñu tuddee man ñu tuddee ma man liñ ma war a tuddee duñu benn déggoo li ma la kii xoolal baaraamam bii sax bu ma ko jàppee damay bëre. man loolu laa gëm man. Ah, yow sama baaraamam bii bu ma ko jàppee damay bëre man xam man li ma gëm man. Mm. man li ma gëm xam nga man li ma gëm man loolu rek man laa mës a gëm. yow dama bëgg nga déglu ma Ziza dem bëri ji su tegee loxoom sax ma dem bëri ji ma jàngal bëre. Pambaay numéro 2 moo la jàngal bëre kon dëgg la. te xoolal xam xam nga soq sama gaan moo daan Pambaay soq dafa maa jox ay kele. man soq dama may nga naa ma soq soq naa ko man ak moom Gàmbi nga naan ma ay soq. soq booy du sa morom. yow doo ñu réglé gëmal sa bopp nga naan ay soq. du sa morom la quoi ay may ñu nga naan ma ay soq nit nit doo wax dara xamoon pambay xamoon pambay pambay booy ñaa laa fa bëgg a bëreel waxuma laa yow nga naan ma ay soq. booy ñaa man booy ñaa mel na. booy ñaa ñaata booy ñaa moom pikin benn. booy ñaa laa la wax nga naan may xar yi fii la waaye fii la bëy jaar. ana may soq doo gëm sa bopp. mais yow yow yow yow yow affaire bongo yi naa la si jox benn. man bongo fii yow dama bëgg nga déglu man du ma comédien booy def comédien da ngay dem def ka ak ñeneen man dama am lu may wax ak yow ma wax ko ak yow du ma comédien man mbër laa yaa may dégg fii dañu fee indi pour ñu wax man ak yow mais bul si boole beneen mbër man géejawaay sama yow li ñuy wax wax wax wax wax wax wax bu la yàlla may wér-gu-yaram gudd fan mais may wér-gu-yaram gudd fan ba le huit incha allah dinañ sëgg bëre incha allah dinañ bëre fu toll nii li ñu def nii da nga fay bëgg a taasu te du ma ko nangu man maatul genre boobu noonu billaahi wallaahi laazim yow yaa gën a jékku si man bambara laa xaw ma yooyu te yow xam nga yow sa sa cosaan la dama la koy wax booy munoo fexe ba maag yow incha allah si kàttanu yàlla yàlla nañu yàlla may wér gi yaram gudd fan talak fekkee ci diggu géew bi gis nga yow loolu gis nga yow booy gis nga yow nga yow gis nga yow booy kii di nga bëre moom cinq minutes booy déggoo li ma la kii xoolal lu muy indi rek dinaa indi lu ko raw non ndax damaa xam ne boo ko boo ko xeebee. Ziza xeeb dama ko nga déglu ma yow musuma barki Seydina Mouhamed. billahi wallahi lazim. Ziza du ma xeeb sama benn adversaire. Ziza laaj ma lu tax duma ma xeeb sama adversaire. parce que làmb la gis nga moom dafa opté pour dimbali waajuram man ma opté pour dimbali sama waajur. loolu loolu loolu noonu day metti day fay location damay fay. location maa ko gën a sànn maa gën a sànn ma yaay la gën a sonn fop. sama yaay déglu ma la moo tax instant dama ne teg samay wax man musuma dem signature kon di wax di waxaan nii parce que xam nga lu tax parce que tey jii nii ñun fi ñu nekk quoi ay référence lañ parce que lii nii day génn mun nañoo toog kafre xam nga du ma dépassé kenn du ko dépassé man damay mbalag. ñu ne duñ la mës a dépassé. xaaral da nga may bàyyi ma wax wala. man nag lii de moom bëgguma ko fii. non non moraluñ dama lay wax ko dama lay wax man sam bopp quoi. parce que ba ngay ñëw woo naa la ne man ay signature nekk fa noonu di wax du ma ko def nga ma non nga ma nga toog suñu kër man la noonu dina ñëw def signature sama combat moom ku yaakaar ni combat bi day yomb mi ngi nax du boppam ah, xam nga lu tax ah. ku yaakaar ni combat mi ngi nax boppam man jaan gi maatuma tiitlu ma ba may matt wax la nag li ngay wax noonu li ngay wax dama ko xam bu baax a baax borom daaru kii sama maam la sama lépp la nga naan ay jàng màttumaay duma màtt li ngay wax noonu amul maag yow la kii biir géew day génn maag yow ñooy daje biir géew dama bëgg nga xam loolu bu nekk di si dugal keneen kii sama maam la borom daaru. waaw mais yow kii dana ay ci moom dara kii lu ñu wax si moom olof nga wax de ah, wax ci kon laal na la ay yar déggoo ma dama ne biir géew man. ay yow la papa Victor du nit quoi. say bada ma yow loo mën a liggéey benn. maas non doo nit liggéey fukk. maa la gën a nekk xale fuuf loo mun benn mën naa ko fukk. loo baax dama la yow yaa gën a nekk xale dëgg la yow lan nga mën man li ma mënul. yow waaw yow bu ñu si entraînement yaay bàyyi mais du ma ba commencé ko xam nga keroog yaa ngi maa soo ngeen fii. loo bëgg ñu def soo saa wala ma déglu ma suñu déglu wuy ma xam soo saa man kay leen leen moom mun naa la ko defal waaw leen mën naa la ko defal kon def signature léegi sa waay jàpp àjjuma nga am foo ñu yóbbu maa ngi moom mën nañu ànd antenne wax noonu du wax barki Seydina Mohamed non ma maa ngi moom Ziza àjjuma àjjuma àjjuma signature mooy fi ñëw da ñuy woo ñu ñëw nga yóbbu ñu fen maa ngi moom nga yóbbu ñu si diine war seen nga pour ànd moom entraîné pare ma naa moom pour contact ak ah, moo war la yow li Abdou mi ma yaakaar billaahi wallaahi laazim billaahi wallaahi laazim sañ naa ko boo ko jëlee xam te déglu ma yi muy def nii man kii ma gis say morom ne jaar nañ fi nangam sangam a nekk maa yow ñooy bëre booy bu la neexee taxaw ñu may la kilifa gi kilifa gi ñun duñu wax ci yow dara parce que suñu sëriñ nga quoi xam nga yaa ngi dégg lu ma la wax. négocier ma de su ma la jekkoo def loxo boo ma ko jekkoo def loxo dama la koy wax lu leer de dama la koy wax mais déggul ma déggul ma ma wax la bu ma a kii ak kenn ah, booy ñun yaa ngi dégg lu ma la borom daaru ñun suñuy taalibe xalool dama lay isla affaire pour nga dégg dégg booy régleel booy régleel eh, yow yaa war a régler yow du yow yaa may régler tuuti nga ci booy déggoo la ma koñ bi ma dëkk ragal dëkku fa wala yow déggoo li ma la. man tapet la mais dama. yow doo tapet de. Eh, taxol non doo ragal de. yow sa làmmiñ nga yor di wax. sama làmmiñ laa yor. yow booy. <laughs> sama làmmiñ laa yàlla la yàlla defal jàmm defal ma jàmm ba bis ba. daf ñu koy defal te bu ma nee la kurtum nga xam ne xale moo la téye. da ngay sóob yow di yow yaa may def kirtim. jàppal bu baax takkal. takk fa takkal peese. waaw kaay toog. seex <laughs> seex bu ba nga xam ne deuxième pied la amul dara. seex kaay toog taxaw eh. man duma maa man duma maa la Ziza maa la takk bëri téeméeri junior. mais dama lay daan incha allah. incha man maalay lay daan si kàttanu yàlla. ma daan yow si kàttanu suñu borom. incha allah maa yow ku dàq bëri. ku gën a entraîné. waaw yaa may dégg. waaw ku gën a sérieux. Mhm. yàlla la yàlla may ndam. Mhm. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo xas-xasloo mënu cee ñàkk ñu waxtaan ak ñoom ah divertissement faaw mu am ci lii mooy làmb jam kontaan nañ ci yow bu baax baax ndax da ngay xool li nga xamante ni nii mooy doxal làmb wala li nga xamante ni moom la amateur yi di wër nga àndil leen ko tegal leen ko seen biir ci làmb ji daal maanaam nga xool li nga xamante ni moom la amateur yi bëgg nga di ko teg naka nga na waajee sa diggante yow ak waaw liggéey rek kon ni ñu doon waajee bii dafa dafa raw nag jóge si dal teg si dal la combat bi dafa raw du ma bàyyi dara. duma bàyyi tus si kàttanu yàlla suñu borom du ma bàyyi dara fi ma dugaan laay dugaat entraînement pur et yokku lépp arbitre soufflé incha allah ñëw wane lu liggéey parce que dañuy bëre bëre ñu pour combat bi dañuy bëre incha allah pour yeneen combat si kàttanu suñu borom dañuy ñaan yàlla yàlla suturaal ñu may ñu kàttan. kii bu arbitre sifflé ñu won ko ñun lan lañ liggéey si kàttanu borom bi. mais est-ce que xeex. lépp laa indi du bàyyi dara xeex bëre tout laa indi lu CNG dogalul rek laay bàyyi si. mais dama gis combat bi da nga andi bëre. lu mu est-ce que di lu mu laaj. lamb bu nekk ak lu mu laaj. te kii sama combat moom sax dafa laaj ma xeex ak moom ba pare. ma bëgg a wane sama bopp si xeex. loolu laa bëgg. <laughs> Ziza nag nga na waajee kii. non maa ngi waaj maa ngi waaj bu baax a <laughs> baax ak sama bopp maa ngi waaj bu baax a baax di jégaluwaat bu wér a wér yéen jégaluwaat bu dee wax nañ lu ñaaw rek nañ ko ñëpp jégal quoi parce que parfois lii nii da ciy am solo quoi ñun moom ñu ngi waaj. Hmm. ñu ngi waaj bu baax a baax ñu ngi waaj parce que sa même sama gars yi ñëpp a ngi waaj ah parce que même carte bi ñu. gis naa ay ay t-shirt ñuy jaayee cinquante mille. waaw parce que waaw parce que xam nga loolu noonu loolu noonu boo gisee ñu jaay ko. parce que gars yi ñoom ay borom baax la Ndiaganiao El Capo. Mm-hmm. xam nga monsieur le maire xam nga magget Thiandoum ñoo ñëpp dañ see jàpp parce que si combat yi noonu noonu ñoom ñuy jënd t-shirt yi cinquante mille loolu ñun amuñu seen fay. xam nga di wax waa quartier yeewu quartier bi ma dëkk pikin man yéen rek laa am lu ma mënti mel yéen la su baaxee yéen la su bonee yéen la kon maa ngi leen di sant bu baax yéen waa quartier yeewu aw ma lu dul yeewu ay seen mag bi di sant nag Pikine yëpp nag di wax yeewu espace non à la violence rek lañ ci woote quoi coow la ñuy bañ. waaw yàlla na yeewu gagné nag mais yeewu espoir jàmm lañ ci bëgg quoi. nawetaan bi ba yaakaar euh, ko. waaw dañuy wax rek dañuy dañuy dañuy gën a defaraat quoi parce que koñu jara deux ak sama koñ quoi. Oh. te loolu noonu jàmm dafay war a xaj quoi. waaw ñoo war a football demi final te loolu jàmm la quoi. président moom laa tuddee sama doom sama taaw quoi Seydina Mohamed moom laa ko tuddee. xam nga li ma la te foofu jàmm rek lañ ciy woote quoi. sama gars yi nekk Europe nag chaque jour dañ may woo quoi ñu lay béggee bu baax a baax sama gars émission bi. grand-père borom Belgique ñu ngi lay woo Cheikh Cissé borom France ñu ngi lay woo Sekin borom Fatick borom Espagne ñu ngi lay woo ñu ngi lay woo bu wéer a wéer nuyul Papa Victor <laughs> ak Moussa Fall ak waa quartier bi ñu ngi leen di bëgg quoi mais beneen instant bi lu si gën a am solo mhm. mooy que ni làmb jii nii su fekkee moom da ko bëgg benn gënu ma bëgg parce que làmb la làmb jii nii daam lu ma danga may bàyyi ba pare ma yeggali waaw parce que xam làmb ji dafa nekk làmb joo xam ne làmb revanche la xam nga moom day jël revanche man tamit damay jël revanche quoi moo tax làmb ji waaw dafa jël revanche parce que nee ba may bëre xaw ma kenn dafa dem jooy quoi affaire yeeg yooyu coppet bi ne ko ci pay nee na da doon jooy quoi te jamono jii nii am na yeneen yu bees yu génn quoi Mandela muy jooy waa muy jooy nee na jooy boobu. boobu bëre bëre mag la. waaw mais léegi bëre bëre xale la. Euh, ok. moom bëgg mu xam loolu. te la benn affaire si moom. Mhm. moom xool mu juddoo ba léegi ay xol yu baax rek la yor xol bi nekk si teg parce que koo daan mu jooy. waa dafa gaaw a jooy waaw dafa gaaw a jooy nag. gisoo Lassander ba muy bëreeg moom noonu la demee woon quoi ma daal ko mu naan mère Yacine parce que sibul di ko même petit ñaan noonu la demee c'est que duñu sib quoi. sibul sibul sibul. da nga ne lastandeer ne petit ñaar. sama mbokk saraxule am ma ko quoi. maanaam ay man xam naa ne yow laay bëreel. yow laay bëreel eh kan laay bëreel keneen ku dul yow. arbitre sifflé bu 3 minutes demee yow la ñuy lëng si kàttanu yàlla suñu borom. ba booba yow la ñuy yàlla yàlla def jàmm rek. non gis na booy nag. kaa ma xam ne benn affaire mu nag. non booy nar nga am lu la métti quoi nag. man duma ma yow mënoo maa teg lu ma métti sëñ bi suñu borom yow mënoo maa lu ma métti incha allah yow Ziza yow yaa naan non lii musuma ko foog. non di nga am lu la métti loolu moo ci métti quoi loolu la wax nii Ziza su ma xamoon du ma jaar fii. c'est que li def nii xamoo ko sax. Jamaïcain ñu ngi lay ñaanal yàlla wér gu yaram gudd fan di la ñaanal yàlla jàmm parce que li nga def nii yombul quoi waa kon ñu ngi lay ci ñaanal yàlla jàmm ak almaami li bàccmaa Samba waa Marisques yëpp jaare naa ko si turu almaami waaw jaare naa ko si turu almaami di leen sant waaw di wax ni Sacré kër Sacré Cœur quoi madame Seynabou Mbacké moom dafa bëgg a si mairie bi candidat mairie ci la bokk na ko waa Sacré Cœur yëpp jàppale parce que nekkoon na fi ministre te am na yéeneen ci liggéey bi na ko ñëpp jàppale di wax ni nag élection yi am Pikine Nord jàmm rek lañ ci woote jàmm ak salaam mm-hmm. waaw jàmm ak rek lañ ciy woote xam nga maa ngi woo sama gars yi waa Pikine yi bàyyi ma kenn asmet yi Modou Lo xam nga maa ngi leen woo ñoom ñëpp daal parce que commune nag juum waaw Zil Badiane bi tam ñu ngi leen woo waaw di wax ne tamit dimanche maa ngi jàllal message bi képp kuy doomu Pikine na nga ñëw ci armeeru Pikine yi moom la ñuy moom la ñuy defar parce que armeer yi suñuy maam ak suñuy xarit ñëpp a ngi fa moom la ñu war ñax yi dafa bëri quoi te ni si ñëpp jàpp ñëpp képp kuy doomu Pikine rek na nga si jàpp waaw di jégaluwaat bu baax waa di wax ni sama adversaire tamit cela cela sport quoi parce que suñu raq la ñu may ko changé seen copain yu àndal di leen sant tamit ay gars yu baax lañ ko ay gars yu yoru leen di leen bëgg waaw non di leen bëggee bu wér a wér di sant tamit suñu soxna yi toog nga xam ni ñoom tamit macha allah quoi yàlla na yàlla defal jàmm quoi Moussa Fall Oustaz Badou Gueye staff yi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax grand père Doumbia Sekin Fidèle Ibou Nagoro maa ngi leen di sant bu baax a baax yaa xaadim si la maa ngi leen di woo bu baax baax ci combat bi même téeméer nii rek Ahmed mbay Ahmed Mbaye maa ngi lay woo baax Ahmed Mbaye ak Mario ak maman Bousso maman Bousso maa ngi leen woo baax parce que li ma sol nii ñoom la démb la jógee Italie ñëw solal ma li ne ma boo xëyee sol ko signature quoi Ahmed kon Ahmed Mbaye Mario maman Bousso maa ngi leen woo baax ak Ibrahima Euh, Ibrahima Ibou mi nga xam ne Macky Sall moo ko teg Pikine muy jàppale jeunesse bi te nee na combat bi dinañ jënal ay bolok Ibrahima kon ñu ngi lay sant bu baax a baax yàlla na la suñu borom defal jàmm yow Macky Sall war na def ministre quoi yàlla na la suñu borom defal jàmm di woo ñëpp nag bàyyi ma kenn di jégluwaat bu wér a wér yàlla na yàlla defal jàmm ba la wit incha allah waaw di ñaanal sama papa Mor fa mu nekk gënal ko fu mu jugee di ñaanal aussi sama papa Bayri Sey fa mu nekk gënal ko fu mu jugee sama yaay tata Marème yàlla bàyyi ko fi xam nga di nuyu sama prési prési paate bu baax a baax a baax mi nga xam ne sama papa la sama lépp la bu nee bàyyil ñu bàyyi bu nee defal ñu def di nuyu sama papa Tafa Ndiaye aussi xam nga di nuy sama papa sama maam sama lépp sama kilifa sama lépp borom daaru di nuy aussi sama mag sama xarit sama lépp góoti di nuy ay soxnaam di nuyu Modou Gissé aussi sama mag di nuy yaayam yaa maari kenn du ñëw mi nga xam ne moo yor sama togg yeeg yëpp di nuyu sant sama yaay bu baax a baax ak sama maam xam nga école ba bàyyiwuma kenn sama entraîneur yi nuyu sama mag guy gi sama mag Pape Mbaye xam nga sama mag super eh, jamono xam nga waaw xam nga di nuyu tamit <laughs> waa itali buuba maa ngi koy nuyu depuis itali xam nga di nuy aussi sama tata Omi itali kaana maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax xam nga di wax bépp saraxule bu nekk si Sandaga rek ñu ngi lay woo si combat am maxoogu quoi ñoom ñu lay jàpp bépp bu nekk si sar yi nekk Sandaga ñu ngi lay woo si combat bi di nuyu Youssoufa Touré la Youssoufa Touré laa ñu ngi koy woo si combat mu jàpp si bu baax a baax Omar Gueye di woo saako bu Balla gay 2 saako ñu ngi lay woo dafa may jàppale si biir ak si biti di ma conseiller di nuyu aussi jaara xam nga jaara ñu ngi koy nuyu bu baax a baax dañuy jàppale di ñu conseiller ak rakam Abdou xam nga di nuyu buuse sama mag sama xarit sama combat bi dafa ñëw may ma xaalis bu bëri dinañ ma ay billet buuse maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax a baax a baax du ànd ak kuy daanu de waaw xamuñu ko sax si kàttanu yàlla suñu borom dañuy bàyyi lépp si loxo yàlla liggéey waaw xam nga gën a teg lépp si loxo yàlla rek di nuyu aussi monsieur le maire Aline Sall combat bi jàpp na si monsieur le maire Aline Sall ñu ngi koy woowaat mu ñëw jàpp si bu baax a baax moog Cheikh Mbacké di nuyu Modou Faye bu baax a baax Modou Faye ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp si monsieur le maire président Raymond baas ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax yaa may dégg Mouhamed Thiam depuis New York ñu ngi koy nuyu xam nga moor juuf Mor maa ngi koy nuyu waa Petersen waa Petersen cat ba cat waa Algayda ñu ngi leen nuyu ñu koy jiitalee si moor Diouf ak Mor Lama xam nga ak grand Cheikh. ñu ngi leen di woo si combat bi xam nga noo lii affaire la rek. waaw borom daaru moo ñu ko jox ku ñu limul rek jàpp ne dañoo juum xam nga. du waa Géejawaay mafia fokoti bi mafia teg jeexal bi ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu mobiliser ñoom Gomel booy Aziko yi Abu kafe waa Massa Ndiarème ñoom Njuga xam nga Fallou jaaykatu yàpp Fallou jaaykatu yàpp ñoo ngi koy woo Papa kafe Abu Café bàyyiwuma kenn Géejawaay maa ngi leen di woo di leen wax combat bi. seen combat di nuyu aussi. xam nga di nuyu xam nga borom daaru góot yi moo di gisee ak sa caméraman ak soxna yi fi nekk nga xam ne boobu ba léegi xam nga. ñun lañ doon xaar di la nuyu Ousin yow it xam nga di santaat yàlla bu baax a baax di nuy Baye Dame bu baax a baax baax sama mag sama papa Sakho Dior 2 dama ko fàtte maa ngi koy nuyu bu baax a baax Sakho Dior numéro 2 di nuyu soxnaam Khady sama yaay di nuy tamit sama yaay Adja nekk Medina 55 sama yaay Adja maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak Saa Touba Saa Touba dafa jàppoon si combat bi ah, waa ak waa Mboro Pape Pape xam nga waa Mboro ñoo jàpp si combat bu baax a baax a baax képp ku jàppale Cheikh Super Jamono maa ngi lay ñaan xam nga combat bi nga ñëwaat jàpp si bu baax a baax a baax a baax waaw. waaw waaw maa ngi sant maa ngi woo sama papa Aziz Seck. moo nekk Malika di ñaanal yàlla waaw Malika defal leen jàmm ak sama maam bi fa nekk. xam nga di santaan samay sama papa sama yaay di leen wax nii di leen ngeen gën ma ñaanal ko ak samay mag ñu ma bokkoon ndey ak baay ñoom ñëpp daal famille daal ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ak association bi association ànd defar sa gox. maa ngi leen di woo bu baax a baax jaare naa surtout turu maa ngi leen woo bu baax a baax Ibulaay ñu ngi lay woo si combat bi Ibulaay mi nga xam ne moom la Macky Sall teg te xam naa ni incha dinaa la fi yóbbu incha allah quoi muy jàppale jeunes yi te amul poste amul dara kon yàlla na ko suñu borom defal jàmm quoi grand père Doumbia borom Belgique maa ngi lay woo bu baax a baax di la woo grand père Doumbia maa ngi lay woo bu baax yaa Cheikh Cité fidèle Ibou Nagoro Khadim Silla maa ngi leen woo. café nag café Kébé maa ngi leen woo ak Diorin bàyyiwuma 100 pour cent Pikine bi maa ngi leen woo yéen ñëpp sama nijaay Papisco Tamsir grand père Faye As Messi Modou Lo Cissé ñoom Jean ñëpp mafia boobu bàyyi man ñoom Dundiaye waaw maa ngi ñëpp ah woo naa quartier man aw ma lu dul ñoom ak quartier Zeng maa ngi leen woo yéen ñëpp ak Espoir Teranga Khadim Diagne maa ngi lay woo bu baax a baax Khadim Diagne yaag suñu yaay yaa suñu dukkure amuñu lu dul yéen Khadim Diagne yaa suñu dukkure ñu ngi leen di woo bu baax a baax bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn. ñu ngi jégalu bu baax a baax di nuyu tamit sama boy yi nga xam ne dañuy sonn si man ñoom Ela ñoom Seka Jo ñoom Baata di nuyu aussi Philippe mi nga xam ne moo ñu yor saal xam nga di nuyu ñëpp ñuy jàppale ku ñu limul rek jàppale na dañoo juum daal sama entraîneur yi tamit fàttewuma leen di xam nga Laye Gunaas Baba Maal xam nga Ousseynou use aw ma fayam. Sooy na aw ma fayam kooku dafa may jàppale si biir di ma jàppale si biti kooku aw ma fayam dama koy ñaanal yàlla may ko gudd fan. comprendre nga sama entraîneur yi bàyyiwuma kenn ak waa école de lutte sama mag mbaytin maa ngi koy ñaanal yàlla may ko combat may ko ndam sama mag mbaytin maa ngi koy ñaanal yàlla may ko combat may ko ndam mbaytin borom xol bu rafet. dinaa ko fi ko fi daal gis nga mbokk yi waaw may ma. ma pare nañ pare nañ waaw ñu ngi woowaat ñëpp rek <laughs> sama mbokk biñonaay quoi dama leen fàtte quoi maa ngi naan nii quoi sama mbokk biñonaay su ma nee nii rek xam ngeen quoi waa Bignona maa ngi bu baax sama mbokk bambara yi ak sama mbokk séeréer yi maa ngi leen woo bu baax a baax ok maa ngi leen bu baax a baax nii lay demee ci jàmmaarloo bon na lay demee ci jàmmaarloo di leen jox di ah, di woo nag président Lat Diop ko kenn la moo kenn la ci man ak doomu ndeyam waale démb gis nañ ni mu def golf waaw waaw gis nañ démb ni mu def golf kontaan nañ ci moom bu baax a baax ñu ngi koy ñaanal nag yàlla na ko yàlla jox maire bi ak ki nga xamante nii ni mooy Pape Gueye mais jàmm gën si kaa mbaaw ñoo ngi koy ñaanal bu baax a mm. baax moom tamit. waaw moom tamit ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi jégalu nag di nuyu waa Palmarin bu baax a baax a baax ak waa Jilaas xam nga di nuyu Sangomar bu baax a baax a baax ñu ngi jégalu. ñu ngi tubb wér a wér waa Palmarin waa Jilaas xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di woo si combat bi waaw di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër. joxante leen loxo. <laughs> jaa jëf ba beneen.